pas que génn nañ le 31 rek. loolu mooy conseil constitutionnel mënu ko wax ni mënoon nga ko dissoudre depuis le 31. léegi yéen lan ngeen di xaar ñu def dissolution assemblée nationale avant mois de septembre avant le 13 septembre. dama ne dama ne. loolu ngeen di xaar ci sept sages dama ne fu mu toll nii ñun si sept sages yi la ñuy tënku fu mu toll nii le président de la république en tant que légaliste il a demandé avis au conseil constitutionnel. léegi nag rapport au conseil constitutionnel bu nga koy jox ci ñaari dates yi. Hmm. ndax. Euh, euh, proclamation de résultat définitive la. Mm-hmm. wala ndax installation des députés la bu mu ko ci fournir moo xam ne ci lii laa war a tënk. Mm-hmm. léegi à de ça nag. Mm-hmm. moom mooy xool ndax damay dissoudre assemblée wala du ko dissoudre bu dee dissoudre ko nag. le PME ira faire sa déclaration de politique générale devant les députés. fekk ñu defar règlement intérieur ba. assemblée nationale ba pare ñi xam kan moo ko falsifié woon. waaw comme ngeen soog a pare. pare dugg na assemblée nationale ñoom ñoom ñoo koy daw moom mosu leen daw. dugg assemblée nationale ñëw ñu jox ko ses cinq minutes mu war a taxaw si hémicycle bi pour def discours am période bii. Hmm? en tant que PM. Hmm? war a ñëw wax naka nga war a gouverner. pendant cinq ans. Hmm? ñu lay laaj ci santé bi. nga leen di tegal lu leer. ñu lay laaj ci wàllum économie. di la laaj ci suñu pétrole ak suñu gaz bi. loolu lépp est-ce que Ousmane Sonko am na ay arguments solides. yu mu mën a jàkkaarloowee ak les teg dara ci seen loxo. soxna si projet Pastef ngay wax de <laughs> le président moom ngay wax de. moom la Ousmane Sonko war a defar projet pareegul nag yarga. non mais attendez <laughs> soxna si yow tamit. ah bon yéen a wax ne projet bi pareegul. projet dina dina ah, loolu mooy problème bi à chaque fois ay waxu président Ousmane Sonko man daal gars yi war nañ leen a tàggat pour ñuy dégg pour ñuy dégg waa ji xam naa peut-être niveau bi moo xaw a xaw a kawe mais. projet bi ñun moom la ñu battre campagne projet bi chaque fois fu fu ñu dem def nañu campagne présidentielle fu ñu dem président Bassirou Diomaye day génnee am pàcc ci projet bi wax si ñu demaat feneen nga gis la premier ministre Ousmane ko génnee am pàcc wax si projet boobu moom la ñu battre campagne livre bi mu ngi existé bërki Dembo Ndiaye gis ngeen suñu benn euh, frère patriote bu ko brandir devant une chaîne de télévision de la place. Mm-hmm. pour wane ni lii ça existe donc li leen Ousmane di wax mooy maanaam loolu pour ñu mën ko niveler joxe orientation yi parce que boo nekkul ci biir ak boo ñëwee ba toog maanaam xam li nga xam ni moom moo disponible parce que boo nekkee ci biti peut am nga sa projet am nga sa bëgg-bëgg am nga sa gis-gis lii laay yóbbu ci càmm gi lii laay def ci mbay nii laay def ci ci ci ci mine lii laay def ci pétrole lii laay def ci éducation bi nii laa ci def jigéen ñi nii laa leen di lii laa leen prévoiral leneen ak leneen xale yi et tout ça maintenant bis boo ñëwee ba egsi ak li nga xam ne si moom moo disponible comme ressource ak li nga xam ne da nga koy def à court terme ak li nga xam si day dem à moyen ak à long terme yooyu noonu réajustement yooyu lañ lay wax. <laughs> mais c'est pas que projet bi paregul projet bi ça existe boo bëggee xam naa prochainement su may ñëwaat dinaa la ko andil. <laughs> jox la ko nga jël benn exemple. teg ko fii bu ko defee xam nga li tax ma ni leen seen projet bi ba xam pare na yarga boobaak léegi. le président Bassirou Diomaye Diakhar Faye. lan lay gouverner état du Sénégal. programme PSE. programme PSE lay gouverner état du non la Binta Binta la la la <laughs> maanaam gars nga fa la ñuy defee erreur <laughs> eh? ñun dañoo falu fekk Macky Sall voté benn budget ba pare effectivement <laughs> budget boobu orientation yi ñu jox budget boobu à part exception yi orientation boobu mënoo ko ci génne parce que comme ay institution la ñu yor mhm. comme ay ay ay ay département ministériel la ñu yor budget yooyu ñoom loolu la ñuy fonctionner munoo ñëw nga ne dangay ngay récupérer budget boobu yëpp nga def ko beneen orientation la déclaration de politique générale bi tamit foofu lay amee problème nag tey une fois mhm. lépp loo xamante ne président Macky Sall da ko doon doxal da ngeen koy effacé indi loo xamante ne nii mën naa jubbanti Sénégal non attendez ngeen ñëw ak slogan jub jubal jubbanti non attendez là ci budget bu mu nekk nii budget bi munoo ko changé budget décembre ba décembre lañ koy voté hmm. yow munoo ñëw nga ñëw mois d' avril nga bëgg ne non sama sama sama prédécesseur budget bu mu voté woon automatiquement dama koy génne si état lañ nag quand même ñun lu ñuy mën a changer mooy budget bi nga xam ne ñoo koy votel suñu bopp sukkandiku suñu projet jox mm-hmm. suñu budget ay orientation yu mu fi am gis nga yow budget bu ñu voté ñoom 7000 milliards la ñu voté mm-hmm. alors que le ministre de l' économie et des finances bu mu ñëwee bi ñu mm-hmm. bi ñu bi ñu bi ñu correction bi ñuy indi ay 5 5000 milliards lañ nekk kon 5000 milliards boobu fu mu toll nii le gouvernement fait pour que réew mi mun a dox si yenn si yenn côté yi. pourvu que fekk nañ ko fa déjà est-ce milliards yooyu gars yi voté woon est-ce que bi ñu ñëwee ci nguur gi fekk nañ loolu dans les caisses de l'État ministère bu si nekk li la voté woon est-ce que bi ñu ñëwee nga xam ne dafa waroon a jël en compte 12 mois. Mhm. est-ce que bi ñu ñëwee après les 3 mois bi ñu ñëwee dara desati fa. point boobu dinaa ci ak Ousmane Sonko sortie bi nga xamante ne yi nga xamante ne dañu fa ñëw fekkuñu fa dara mais dañuy daal di des ba tey ci assemblée nationale. ndaxte kii di Abdou Mbow. def na benn euh, sortie demandé ko l'état du Sénégal par rapport ak limogeage bi nga xamante ne def nañ ko ci ki nga xamante ne moom moo di docteur Cheikh Dieng. ñu denkoon ko këru liggéeyukaay googu di ONAS. nga xamante ne ñu nga cay dégg wàllum njuuj njaaj ak ay lobby ci ginnaaw. ginnaaw question boobu moom Abdou Mbow ba mu ko defee Guy Marius dafa génn. def réplique. ci kaw Abdou Mbow Abdou mm. mbaw defaat beneen réplique ci kaw Guy Marius Sagna est-ce que en tant que de députés waruñu mën a édifier en mm. tant que moom Abdou mbaw question écrite la bind mm. adressé ko état du Sénégal kan la ko adressé ministre bi wala effectivement est-ce que état mënut a génn répondre ko ci question boobu waa ce qui est mooy par rapport ak euh, ki nga xam ni dañ ko wàcce Cheikh Dieng mm-hmm. nommé keneen loolu ay ay pouvoir discrétionnaire au président de la république la c'est lui qui nomme aux emplois civils mhm. et militaires amul kenn ku ci am pouvoir mhm. président de la république mhm. moom la constitution bi jagleel pouvoir yooyu mu xool asuwaay jël ko dénk ko ONAS dem ba ba ci jimmi jamono mu jëlati keneen daldi ne kooku léegi yow wàccal joxal kee dawal yaakaar naa ni Abdoul Mbow bu fekkente ni il voit euh, du mal à ça dama yaakaar dafa xamul li nga xam ni ñoom ñooy ay prérogatives le président de la république. Mm-hmm. certes moom il a le droit en tant que député di interpeller les ministres demande leen des fois adresser gouvernement bi ay questions écrites et tout ça mais loolu c' est pas du ressort amul kenn ci ministre ci ministre bu membre gouvernement bi koo xam ne moo nommé Cheikh Dieng. ki ko nommé moom mooy le président de la république. voilà te président de la république bu muy rendre Abdoul Mbow. ci li nga xam ne si mooy nomination wu mooy nomination wu Cheikh Dieng boobu. mais le ministre tutelle du docteur Cheikh Dieng. Hmm? muy ministre bi nga xamante ni moom moo yor wàllum hydraulique. Hmm? Cheikh Tidiane Dièye am na ay réponses yu mu war a jox Abdou Mbow en tant que un représentant du peuple. Abdou Mbow si nee naa la ñoom mën nañu interpeller un député mën na interpeller le ministre par rapport ak ci question bu mu mënti doon mu poser la question te tu as l'obligation des prérogatives du de, du du ministre de comment on appelle ça Cheikh Tidiane Dièye président de la république moom moo jël décret daal di fal keneen donc man ci li ma jàpp nekkul ne kooku la ñu war a laajte parce que ki nga xam ni moo fal wala ki nga xam ni mooy wàcce kooku c'est le président de la république c'est pas ki nga xam ni moom la adressé sa lettre kooku moo fal. mais mais donc ci ci gis-gis bu gàtt beneen bi des na pareegu ma pareegu bi. Mhm. mooy li ko Guy Marie wax. loolu c'est c'est c'est très c'est c'est très pertinent. Mhm. parce que tey assemblée nationale ak seen budget. Mhm. nga xam ne si elle manipule à elle seule un budget de presque vingt mille vingt milliards. Mhm. te elle n'est soumise à aucune obligation de elle n'est soumise de rendre compte. donc yooyu entre autres mooy problème yi nga xam ne ñoo gën a ça fait partie des problèmes les plus cruciaux yu ñu war a régler. que di taxaw di am ay. doute yooyu am ci pouvoir discrétionnaire au président de la république. Mm-hmm. donc man pour man Abdoul Mbow de déjà day il fait fausse route. Mm-hmm. man loolu laa jàpp quoi. Mm-hmm. voilà mais en tant que député am na droit laajte ban lobby. le docteur Cheikh Dieng di wax ci loo xamante ni moom moo am ci biir ONAS. marché yi nga xamante ni pendant quinze ans mhm. dafa am benn groupe de cinq personnes yoo xamante ni ñoom ñooy gagné on ONAS yooyu mhm. est-ce que tamit jotul ñu leeral ko sénégalais parce que même situation ga mhm. moom la ñuy gis ci période bi nga xamante ni nawet dafay am ak inondation bi lan mooy problème bi exact xam nga xam nga loolu moom Abdoul Mbow bu ko waxul sax xam ni ñii moom am na gouvernement bu fi jóge problème yu mel noonu nekk fi demeuré entier jëmuñu ci benn ut benn saafara ñoom ñoo fi waxoon ñoom ñoo décaissé woon 776 mi 7 wala voire 775 milliards pour plan décennal de lutte contre les inondations mhm. fan la mujjee demal Touba. Mhm. ñëwal fii à demal ci gox-goxaan yi demal Saint-Louis ci les zones inondables yépp nga xool ndax loolu fan la mujjee est-ce que ñoom kenn ci ñoom mës na jóg daal ne dañuy dañuy jóg parce que loolu la ñuy xaar ci député au fait. Mhm. est-ce que mës nañ jóg daal xaalis bii nga xam si dañ ko génnee ci gafaka réew mi sénégalais yi moom ko. ñu jël ko jébbal leen ko kat pour ñu saafara wàllu mbënd mi fii ci Sénégal mhm. te boobu ba léegi résultat escompté yi gisuñu ci dara te xaalis ba moom nee na France daal di léegi ñoom est-ce que mës nañu jóg posé wu question ci gouvernement yi nga xam ne si jot doo nañ fi jaar loolu moom il va vite en besogne mais il n'a qu'à prendre son mal en patience parce que ce qui est mooy ay yi dina am fépp foo xam ne si dugal nañ fa xaalis